auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ñu ngi leen di ndokkeel di leen balwaax bu baax a baax a baax ñu ngi rafetlu tamit ànd bi ngeen ànd ak ñun seen chaîne bii di Firi Guent TV officiel ñu ngi ñëw ak yéen tey ci seen firi gént comme niñ ko baaxee euh, da nga gis jigéen bu rafet jigéen bu am yaram wala nga gént gis jigéen bu ràgg lool di ko tuuti lool mooy tam bi tey jigéen ñaar yi ci gént ñu bari danga naan dama gént gis jigéen gu rafet dama gént gis jigéen du xees ñu naan la rab la seytaane la jinne la ah, ah. gént gis jigéen bu rafet amul benn rapport ak seytaane ak rab jigéen ci gént surtout ci góor ñaar dafay firi ay xéewal ak wërsëg bu yaato yaatu nga gént gis ko bu dee jigéen boo xam la wala boo xamul kooku mën ngeen dem ci vidéo kii da nga gént ñu wan benn jigéen bu rafet lool wala nga gént gis jigéen bu ràgg lool ba jeex wala nga gis benn jigéen bu am yaram lool loolu laa soxla ci vidéo bi tey incha allah euh, yàlla dafa ci alquran zuyyina yi xubbu shahawaati minan nisaai minan yi wal banina wal qanatir al muqantarati min adahab ila axi waaye min annisa ila soxna ci góor ñaare dafay firi wërsëg dafay firi xéewal ci chart mu nekk jigéen bu rafet lool bu dee bu tuuti wala mu am mazar maanaam mal wenkaat bu ñaaw dinaa ci ñëw ci feeb jigéen bu rafet lool ci góor ñenn ñi yenn boroom xam-xam yi dañu wax ne dafay firi bu la fekkee nga am soxna day firi takkaat beneen soxna wala mu firi tukki ci yow ci góor gu mën a doon ko am soxnaa ko amul soxna wala mu firi ay xéewal ak wërsëg wu nekk ci yoon di ñëw baax na ci gént góor am nga soxna wala amoo soxna nga gént takk jigéen bu rafet lool ci gént bu fekkee ku am amul soxna la day firi wërsëg ak xéewal ci yow bu fekkee ku am soxna day firi stabilité sociale walla mu firi ëmb ci sa soxna wala mu firi ëmb ci sa soxna bu dee jigéen boo xam ne yaa ngi ci néegu sëy danga gént gis jigéen bu rafet lool dana firi xéewal dana firi wërsëg ci charte nga xam ko bu dee xamoo ko nag day firi ay coono ak i xat-xat gis nga gént ñaari nit dañuy gént même gént mu am différence wala mu firi musiba wala mu firi coow kooku moom gënul ci kenn jigéen bu xees pecc rafet ci jigéen bu nekk ci néegu sëy baaxul bu dee ci góor la gën bu dee nag danga jënd sa jëkkër takk beneen jigéen bu rafet sa jëkkër moo ko takk ñaareel la sa boobaa baax na ci charte mu am yaram mu am yaram walla mu rafet waaye bu dee dafa tuuti lool jigéen ñu tuuti ñu baal ma gént la mais nekkul ni da ngay saboté ko tuuti déedéet jigéen bu jeex tàkk tuuti ci gént message la ci gént mais du sabotage message la bu fekkee danga ko gént mu ràgg lool am kanam bu xaw a doy waar njàng lool sa jëkkër takk ko kooka baaxul day firi musiba bu dee jigéen ju ëmb moo gént gis jigéen ju rafet xees rafet ci gént lii lay firi benn mu firi euh, euh, wér ci ginnaaw ba amee doom wala mu firi sag am doom jege lool wala mu firi aaju bu faju ci yow ñett yi lay firi te ñett yi baax na euh, xale bu jigéen amagoo jëkkër nga gént gis jigéen bu rafet tey firi euh, stabilité ci yow day firi bànneex day firi mbégte su fekkee danga am koo xam ne xam nga ni kii diw la jigéen la nga xam ko nga gis ko mu am rafetaay bu gën ni mel day firi mucc ci problème ak njàqare bu fekkee jigéen bi nga gis mu nekk jigéen bu rafet jigéen bu amul jëkkër dafa nekk jigéen bu rafet takk ay takkaayu or yu rafet ci gént wala col gu rafet wala colu marié ñaare day fii di jëkkër ci yow bu fekkee jigéen la boo xamul jigéen joo xamul rek la la wati jigéen ju amul jëkkër day fii wërsëg kon jox naa la jigéen joo ju rafet ci kim baaxul mooy jigéen ju nekk ci néegu sëy xale bu góor nga amagoo soxna ñu walla jigéen ju rafet dana firi wërsëg wala xabaaru mbegte ak bànneex loolu moo tuddeel mu des nag beneen détail bu jara soo naan jigéen bi nga gis melokaanam dafa nekk ku am yaram lool wala dafa nekk ku tuuti lool li ngay jàpp la plupart du cas wala quatre-vingt-dix-neuf ci jigéen bu jeex tàkk quatre-vingt-dix-neuf pour cent baaxul jigéen jigéen bu am yaram moo gën jigéen bu jeex tuuti lan lay firi Euh, bu fekkee da gént jigéen bu ràgg lool jigéen bu jeex bu tuuti mu lay dàq ci walla mu di la fóon wala mu di la akolaat baaxul jigéen day firi lor wala ñàkk sa alal bu dee nag jigéen ju jeex ji nga gis daa nekk koo feebar ku opp day firi mucc ci pexe na wala mucc ci nit ko añaan bu dee xale bu jigéen bu amul jëkkër moo gis day firi ay coono ki xat-xat ak i problème euh, bu fekkee nag euh, jigéen bu amul jëkkër da nga gis jigéen ju tuuti lool jeex tàkk lool nga xam ni kii diw la mu am mesure bu gën a ñaaw ni mel baaxul day firi problème yu tar yu baaxul ci gént li ngay jàpp jigéen ñëpp ñoo yam gént gis jigéen bu ràgg baaxul ci gént su fekkee ne da kaa gént gis mu feebar baax na da nga gént gis muy génn sa kër wala sa néeg baax na day firi mucc ci problème jigéen ku jeex tàkk mais sorul yére dafa def yaram mu nen baaxul day fi di su xawee ko ci yow baaxul ci gént ci ñépp bu dee da gént sa jëkkër takk jigéen boo xam dafa nekk jigéen bu ràgg lool da gént sa jëkkër takk ko mais nekkul sa jëkkër mu gént takk boobaa dinaa ci ñëw baaxul day firi ñàkk sa alal wala mu firi ay problème bu fekkee nag jigéen ji ràgg ci nga gis daa nekk ko ëmb baaxul day firi jàqare ci yow Euh, euh, jigéen ju rafet lool jégal nga baal ma jigéen ju ràgg lool tuuti lool te xamoo ko xamoo kii kan la ñaar day firi tàbbi ci fitna day firi fitna ci ku mën a doon baaxul ci gént bu dee góor la nag góor jigéen bu am yaram moo gën ci moom jigéen bu tuuti jigéen bu am yaram ñaar dina firi xéewal dana firi wërsëg bu fekkee dafa nekk ku tuuti lool te rafet lool nga takk ko day firi xéewal ak wërsëg danga takk jigéen bu tuuti rafet waaye bu fekkee da nga koo gis mu tuuti lool daal di xaw mel ni ndey saar booba baaxul day firi ay tolof tolof ak i xat-xat kon li ngay jàppu jigéen bu rafetee moo gën mu am melokaan bu ñaaw nekkul message bi nekkul nag jigéen ju rafet ak jigéen ju ñaaw déedéet maanaam gént gis jigéen bi mooy message bi ci gént bu amee yaram moo gën mu tuuti lool ala kulli xaalin bu fekkee ne dafa tuuti quatre-vingt-dix-neuf pour cent baaxul fi mu baax mooy benn mu feebar wala nga gént gis ko muy génn sa néeg bu dee ci góor aussi dana baax ci charte nga takk ko waaye mu am mazar maanaam mu am melokaan bu rafet kanam gi rafet lool ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partager wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa